Boisson Jet Set EDK ak AME ñooy ànd ak yéen seen émission ndekki li ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi. dégg li mais yow man nag dama am teeyu bi ngay ngal-ngali këruma la. waaw ah, man non te te yow say ngal-ngal ma. man teeyu de de de say ngal ngal-ngal dérangé wu mais moo tax nga karam. li nga li nga ko laaj laaj loo xam lii moom ay ah, avocat conseil. fii moom bu doon ay ay conseil technique am. fii moom fii moom ku fi toog ñu ubbi la micro bii pour ngal-ngalee bu micro yi fayee boo ngal-ngalee wut loo fi def. yow sax ngal-ngal day jëm guus. <laughs> am na the Sénégal man la bay di bi dew bu bees yaa ngi ci émission ndekki lii ak maam Nicolas jërëjëf la kon jërëjëfati Bédi bidéo bu bees 98.5 le choix de la différence c'est la première radio d'information du Sénégal bien le bonjour chez vous bienvenue chez nous émission numéro un de Sud FM ndekki émission nandite yi tàmbaleeti jëm ak midi ndax xam ngeen na muy demee saa su ne ni mu demee tax mu demee ni mu demee bu demeewul woon ni mu demee yéen gëm ngeen ne du demee ni mu demee yéen ñi ñuy topp ci gox yeeg goxaat yi nañ leen gërëm leen puisque Dakar n'est pas le Sénégal itam sunu ay plateforme digitale bu ngeen ñu fa kare jamono ji daa ngeen ñu fekk ci YouTube bi ak Facebook bi en direct waane da ngeen ñu fekk ci TikTok bi ak Snapchat bi super réseauté et super connecté ndekki li émission nandite yi je ne suis pas seul je suis ak seen soppe oustaz Maodo Faye bismillah salaamaaleykum oustaz. maa ngi lay nuyu euh, Nicolas di la ziyaara bu baax di nuyu saa Bawol ak bool bool yi nekk ci am dégg naa daa jiitee bool bool léegi. <laughs> macha allah <laughs> sëriñ Mbacke si la SMS. bisimilah jërëjëf kontaan naa kontaan naa Nicolas maa ngi lay fay nuyoo di la nuyu. di nuyu sëñ Maodo di bëkki ni mu nuyoo. Mm. Euh, ak sama gars yi bool bool yi. <laughs> ñi nga xam ne maa leen jiite ak ñi ma jiite ñëpp maa ngi leen di nuyu. jërëjëf waaye ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ah, euh, di amati mbégte xam ngeen situation oblige. ah tey euh, oustaz Maodo Faye ba ñu lay déglu ci suba. Euh, ci xibaar yi ci sud matin bi ma ciy nuyu suma sister euh, Maria borom sud matin euh, dégg nañ la ngeen développé ci xibaar yi waa ne xam nga xibaar yi day wéyandi ndax def naa jamono ji ñuy waxee Euh, foofee ca tribunal bu Dakar euh, audience boobee nga xam ne mooy audience spéciale de la chambre criminelle sur l'affaire Sweet Beauté nga xam ne moom la Sud Quotidien fa xëyee tey euh, Ousmane Sonko Adji Sarr donc mooy coow li tey n'est-ce pas Serigne Mbacké Sylla d'ailleurs dama bëggoon pour camper débat bi laata ñoo sori ñu daw tribunal de Dakar ah ñu naan ko palais de justice am nañ fa benn naatango bu hmm. Seneweb bu ñu naan Babacar Kébé mu ngi fa en direct jamono ji Babacar voilà Oustaz Mbacké maa jërëjëf ñoo ngi am mbégte lool ci jàppalante gi ak itam nekk gi ngeen nekk foofu ci jamono jii xam naa euh, yaa ngi en ci Sud seen rajo ci émission ndékki li ak sa naataango sa mag ci liggéey bi Oustaz Maodo Faye ak Nicolas bismillah. wa jërëjëf voilà Oustaz maa ngi lay bu baax a baax. di ngi lay fay bu baax a baax a baax. Euh, actuellement comme ni ko ni ko daa waxee sànq aussi au niveau du tribunal de Dakar xam nga comme ni mu daan amee la dernière fois am na tuuti tuuti coppite boo xamante ni jot na fee taxaw mais bariwul loon te coppite boobu nekkul ci mais lu dul environnement bi nga xam ne tey jii beneen karkaram moom la wane. mais jàpp leen que ni l'audience bi nga xamante ni audience spéciale moom la ñu groupé oustaz fu nii tembe presque lépp décoré nañ ko bu mu mat sëkk à l'intérieur même de la salle bi nga xam moo di salle quatre fi ñuy amale lu tukkee ci audience bi ñu mel te ñu duppee ko audience spéciale ñu bare bare nga xam ne mbir mi ñoom la ñuy te mu nekk mbirum Sweet Beauté fu mu toll nii koy amal sudul benn personne boo xam ne ñu bare bare moom la ñuy xaarani te muy Ousmane Sonko moom moo nekk absent fi nga xam ne moo di ci biir salle bi à l'intérieur de la bokk na ci biir ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne avocat lañ ba ci ñeneen ci ay témoin ci lim mënees na koo jàpp te mu tëdd ci lim fukk ak ñeent ba fukk ak juróom yoo xamante nekk nañu fa au delà de ça également bokk na ci li nga xam ne moo di procès mooy président bu kay ci wàllu audience boobu la donc bu mu yegsee euh, li njëkk li nga xam ne jot na am moo di bi mu nuyoo ba noppi taxaw ñëpp donc ci la laajte ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni jot nañu teew plaidoyer Adji Sarr aussi ak ki nga xam moom moo nekk Ndeye Khady Ndiaye jot nañ bi ci nekk ñu ko wooyee mu jóg taxaw moom dañuy xamal ne dafa loru dafa am maanaam euh, li nga xam ne moo di enceinte de huit mois juróom-ñetti fan dafa dafa war na lor ba toll ci juróom-ñetti weer loolu sax dana benn instant yóbbee na avocat bi ci jëppamam sax am na benn xol boo xam ne xolu yërmaane la nangu ko ci àttekat bi di xamal que ne faaw ñu may ko mu toog parce que jigéen bi war loolu moom mooy yóbbee les avocats de Ousmane Sonko ñoom dañoo déclaré que ni Ousmane Sonko moom jotagul li nga xam ne moom moo nekk convocation tax na ñoom ko nga xam ne jot na ci nekk vidéo yi yooyu yi nga dàqandi ba beneen yoon comme ça ñu mën a constitué wu ñoom seen jëm mën a liiraat lëj bu xool bu baax a baax ani lan moo nekk ci boobu dossier gën ko min biir mën a défendre seen client mais malheureusement pour ñoom procureur bi mu jëlee kàddu dafa dàq di dossier bi pour ñu daan di le juge également a retenu la même chose

mais àndoon nañ leen di jàpp leen que salle bi mu ngi mel avocat nekk na ci à l'intérieur jàkkute bi pour renvoyer nekk na nga xam ne ba léegi àndoogul waaye nag nekk na la nga xam ne li ci gën mooy procès bi fu mu toll nii ñu ngi koy amalaate mais renvoi di di côté avocat Ousmane bu dee am benn laaj loolu bokk na ci nga xam ne mën nañ ko doon ici au niveau du tribunal de Dakar de fait. Mm-hmm. Euh, Babacar que kii bi démarré na procès bi. waaw projet bi démarré na déjà ba audience yi tamit fu mu toll nii moom ci biir salle bi càkkutéef yi mu ngi amee ci genn wet kenn ku ci nekk lay yitteel procureur bi nee na audience bi nañ ko retenir war nañ ko mën a juger que ñu daal di ko renvoyer mais juge bi dafa ne noonu nañ ko retenir mais teewul ki évoqué ci ay raisons moo tax ñu bëgg pour ñu renvoyer ko mooy ñoo xam ne dañoo ko ci li nga xam dossier bi leneen li ci bokk mooy dañoo jàpp que ne dossier bi dafa bari lool te pour ñoom ñi mën ci am pour ñu mën cee nekk à l'aise il va falloir que ñu renvoyé ko pour ñu mën a xam exactement loolu moo di raison yi nga xam ne ñoom jot nañ koo joxe pour ne nañu renvoyé dossier bi mais teewul juge bi dafa ko ba fu may àndoon ni génne teewlu li ci kanam nag moom moo nekk beneen laaj boo xam ne jot naa samp. Mhm. macha allah waaw waaw ñoo ko déggandoo Mbacke defe naa yow yaa war a. yaakaar dugg non je crois que Babacar Babacar Babacar wax na l'essentiel. dañ parce que tamit dafa war a. waaw liggéeyam li muy wax ci Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady moo nekk jigéenu wérut wala Babacar. moom moo ah, xam ne wax ne dafa war lor ba am lu toll ci juróom-ñetti weer moom mhm. Ndeye Khady Ndiaye. donc dafa nekk en état de boo xam ne mu ngi ci huit mois loolu moo tax avocat mi ñun tamit dañoo xaw a am benn ñeewantal ne taxawaay ba wuy mu taxaw ci kanam àttekat bi wala ci biir stade d'audience dafay métti ba yegg ci lool xam naa ne bokk na ci tamit lu tax ñoom aussi ñuy demander à a am mais ki ñu wax ne moom moo war na lor ci biir stade d'audience bi moom day xadi jaay la wuyu moom mi ñu jàpp ne dafa nekk complice ci biir li nga xam yoon bi ñu tuumal moom aussi ko di leader bu Pastef Babacar Kebe ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm eh, Babacar Kebe bu Seneweb di lu jokkoo bi ak yow ah déjà jokkoo ak euh, euh, nit ñi ca tribunal c'est pas évident hmm. rawatina bu nekkee naatangoo hmm. yoo xam ne jàppalanteeg dimbalante euh, noonu la hmm. métier bi ak métier boo gis jàppalanteeg dimbalante yi tax ñu jëm ca kanam kon Babacar Kébé Seneweb ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci jàppandal gi def naa xibaar yi leer na na mu ñu ko joxee en direct ci ndekki li émission nandite yi maa ngi ciy nuyu doyen pap Amadou Fall doyen Pape Amadou Fall nag euh, bu ngeen ko déggee mooy. Euh, ah ki njëkk wax ci Sud FM. Euh, en 1994 du noonu mm, mm. Euh, ba ñuy ubbi rajo Sud FM mii le doyen dafa ma woo léegi ci suuf di rafetlu liggéey bi di ma encouragé ak di ma félicité moom mi nga xam ne à travers Alioune Barara la jaar Euh, di rafetlu suñu liggéey bu baax a baax a baax euh, rafetlu itam professionnalisme bi nga xam ne souligné na ko. kon man itam euh, ak humilité bi. ak respect bi ak mbégte bi ma am ma ciy sant bu baax di ci gërëm doyen Pape Amadou Fall ci yooyee encouragement. Mm. saa su ne ça fait plaisir pour fa ñu war a jëm. kon encore une fois doyen. papa maa ngi lay sant bu baax di la gërëm papa Amadou Fall jërëjëfati yàlla na sa taxawaay yàgg. moo ma njëkk a jox émission ci Sud FM. a euh, ci Sud FM Diourbel. a jox micro moo ma njëkk a jox émission. macha allah euh, waaw. macha <laughs> allah nga xam ne lu baree baree baree bari euh, da ci suuf. Mm. rawatina bi nga xam ne nit kuy wax ci média moom la war a am. maanaam ni mu war a simple ak ni mu war a ragale sax nag far. Mm. bañ a jàpp ne am na baatam yoo xam ne du ko fàtte mukk. Mm. ndax da doon wax ne léeg-léeg nit dana wax ci média ba génn yaakaar ni ñi nga dajeel dañu laa sopp ndekete wax nga baaju leen beleese yoo xam ne buñ a la mu ne li ci gën rek mooy kuy wax jàpp mm-hmm. ba boo génnee nga gën a simple mm-hmm. wax jooju dellu ci li nga da ngay delluwaat seetaanaat sa bopp am yoo dindiwaat am yoo yokkaat mm-hmm. wax yooyu moom da ko ñu ngi lay gërëm ci félicitations yi encouragement yi na may gërëm euh, monsieur Babacar Diagne bu CNRA Camara moom itam ci félicitations yeeg encouragement yi di lu liggéeyu ndekki li kon nag euh, ñun suñu ay doyen ak ay kilifa bu ñu dee rafetlu suñu liggéey kon euh, sant yàlla war na kon jërëjëfati encore une fois Babacar Kébé Seneweb ñu ngi koy sant di ko gërëm moo ñu defal euh, live and direct tey ci ci ndekki li <laughs> ñu campé débat bi noonu kon oustaz laata may dikk ci yow def naa loolu sax mooy une Sud Quotidien ah du tey bile comme dirait Mbacké Sylla une fois n'est pas coutume la spéciale de la chambre criminelle sur l'affaire Suite Beauté, Sonko face à son destin. Ainsi titre Sud Quotidien à sa une du jour avec la photo de Ousmane Sonko et en arrière-plan le palais de justice de Dakar. Pastef les patriotes réitèrent son droit à la résistance. Euh, Oustaz dégg nga Babacar Kébé bu euh, Seneweb la mu ñu wax gis nga situation bi fu mu toll noo ko jàngate. waaw ni ma ko jàngate pratiquement mooy ñi nga xam ne noonu la ko Sénégalais ndax xam nga àtte bi dox ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko c'est un procès satanique. Euh, waaw c'est un procès satanique. <laughs> Euh, loolu loolu loolu. Mbacke sat. waaw satanique you satanique. xaw naa niroog seytaane de. wa voilà mu ngoog moom la. waaw mooy mooy ah, maanaam mbir bi dafa rax seytaane ba mu ëpp. Ah. Ah. maanaam seytaane da cee rax lool ba mu ëpp. ci fànn bu nekk nag ci des deux côtés. ndax am na ci loo xam ne dangay ngay dema dem ba mu yàgg yow dafay dépassé mhm. sa dégg-dégg dafay dépassé sa gis-gis mhm. gis nga tey euh, li ñuy jàppoon ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi ñu ne dañ leen di atte gis nga taxawaayu soxna si fi mu toll ci wàllu jigéen ju wérul mhm. ak la ci aju ba ay ñi koy layal naan nañ ko war a dàq ba jëmmi jamono kee tamit de l'autre côté ma nga toog ay avocat am avocat yi Ousmane Sonko ña nga fa toog daal ne ak lu mën a am hmm. kenn mënuñoo indil preuve ne jot na jot na convocation hmm. xam nga léegi beneen laxasaay amaat ci wàllu euh, procès bi boo xam ne bii hmm. boo deful ndànk buñ ko it la fay rote boo deful ndànk danaan rek dañuy loxo de daa dem dar gémiñ wala mu jur loo xam ne itam xëy na bu kerogee euh, féqaloo mën na ca am ñaar yi yëpp nag benn bu ci nekk dafa laxasoog seytaane ndax 2021 ba léegi ñaari at yàllaa ngi nii Sénégal gi yëpp wërngal kap information yi fi gën a fort liñ fiy gën a wax mooy Ousmane Sonko Adji Sarr. 2021 hmm. ba léegi. Hmm. te ci yoo xam ne rot nañ ci te léegi ba léegi caxat gaa ngi law te mënuñoo yegg ca njobaxtan la. Hmm. kon lii bu ci seytaane laxasuwul man xaw ma lu ci laxasu. gannaaw nag ba ñu calculer affaire politique yooyu waaw kii def loolu moom ñun ñëpp toujours ci la wax ci la ñuy xëy ci la ñuy waaye bu ñu ko xóotalee ba xóotal ko ba xóotal ko nag. am na lu nekk loo xam ne li daal xëy na sunu borom dogal na ko hmm. waaye saf na sàpp seytaane hmm. te seytaane soosu nag buñ ko bu mu ngi sawara waa ngi yënd su hmm. fekkente ne amul ku yëkkati am auteur ñu fay ko mu jeex tàkk man suma soñoon tey tey jii tey jii ci talaata ji ci la lépp di jeex sénégalais yi dox seen yitte ñenn ñi kenn ku nekk la nga war a nekk nga nekk ci bu dul loolu fii la ñuy nekk di analyser ba yomal am waaye dañuy delluwaat fan tàmbaliwaatoon rek. Mm. parce que xam nga lu gën a jafe ci procès Adji Sarr ak Sonko. Mm. wax ci lu bees. Mm. li jafe ci procès bi mooy wax ci lu bees. ak a jafe. fi mu toll nii tembe man de xaw ma nan la nit mën a mën a muuse ba wax ci loo xam li nit xamu ko woon. xanaa xanaa lenn yegg nañ faag yegguñu faag def nañ ko defu te loolu commenté nañ ko ba mu tooy xëpp. léegi nag attekat yi itam nee nañ. luy tolloog xëy na 400 xaw ma 71 pages xaw ma yoo xam ni yi benn bu ci ne war nañ koo càmbar xool ko kii Ndeye Khady Ndiaye ñëw indi aw layam Sonko ñëw indi aw layam ak i avocat Adji Sarr indi aw layam ak i ak i nangam nangam mhm. ci benn simple fait est ce que def ko violé violé ko génne ko bi sax xam nga ma ñëw na am moom itam ndax am na lu affaire bi a dem ba yàgg day mel ne <laughs> affaire bi bi ah, ah, ma jox Mbacke. Ah, waaw dama leen ci Maodo. <laughs> nga am na ci wet goo xam ne moom dëppoo naa moom mooy li may faral di wax rek saa yu may wax ci projet bi. dafa soof daal xam naa baat boobu moom miin nga ko ba tey <laughs> moom lay moom laay ubbee Eh, soof gi nag yu baree ko waral ndax dafa bari ay wet yoo xamante ne nii boromum xel dëgg du ci mën a xuus bu baax mm. am ci yoo xam ne itam xuus ci daa rafetut ci làmmiñ nit du ko man mm. moo tax man ñaare bi ñu waxee ne dañuy àtte rawatina bisub tey jii ñu ne tàmbali nañoo àtte bi ko Babacar waxee léegi mm. li may wax mooy dafa amoon ñaari coow coow loo xam ne mooy coowul mbedd mi eh, kenn ku nekk ak ni mu ko gisee ak analyse bi mu ci def ak ay dégg-dégg yoo xam ne déggoon nañ ko ci ay audio ak ay wax ay demal maa ngi ñëw ay waxante. Hmm. am leneen loo xam ne nag moom xay na man mën naa ko bañ a xam. ñi ci mbedd mi ñu ci bareet man nañ koo bañ a xam hmm. mooy la nga xamante ne moom la siis ya xam ak la nga xam ne moo ne ci biir dossier ya dëgg-dëgg hmm. bu fekkee dara xew na ca ca loola ba ñu wootee ab atte ne dañuy ñu mas a jàppe atte bi àdduna di bëgg tukki fu ñu mas a convoqué ñu ne tey la tey la Sénégal àdduna di tukki ñun ñëpp ñu naan lii nañ ko jeexal benn yoon mu jeex jàpp naa ne atte bi bokk na ci li koy jeexal maanaam tey jii ñu toog dër benn yoon wax ca lañ cay wax muy xar-xarub doj mu jeex justice euh, wax ko ci anam goo xamante ne nii ñi koy dégg danañ ko mën a gëm mm. loolu bokk na ci li nga xam ne képp koo xam ne jàmm jàmmi réew mi yitteel na la mm. loolu bokk na ci li nga xam ne dafay indi jàmm ndax mm. jàpp ma ne justice yekki-jekki woon rek taxaw ko àtte yamale nañ ko fi furaas daal di loolu moom réew mi réew mi réew mi réew mi yaakaaru ma ne loolu mooy njiglaayam ci ab justice ndax kon bu ëllëgee euh, dossier beneen mën naa jugati boo xamante ne coow mën na ee bari bañ dellu ginnaaw non non attention Mbacke am na am na dossier yu yoo xam ne gars yi dañ leen a la mm-hmm. c'est sans suite waaw. waaw mais mais comme bii classé wuñ ko ba ñu agsi fii daal. Euh, ci euh, non classé li koy mooy dañuy dem ba ca Ndiobactan la ñu ne bon comme demee na nii. wasalaam waaw léegi ñi ngi ci njobaxtal li tey tàmbali dañoo yëg jàpp naa ne tey bu ñu cay yendoo atte euh, atte bi moom bu jeexut tey it xam naa sax war naa mën a jeex ndax bu Ousmane Sonko ñëwut euh, ay awokaam euh, côté boobu duñ ko layal xëy na ki ñu layal mooy Ndeye Khady ak ñi nga xamante ni ñoo ci aju nañ ci nañ ci nañ ci nañ ci nat jàpp naa ne atte muy atte li ko tax a jóg mooy ñëwul na gars yi nañ woowuñu ko ah. aw ay awokaam <laughs> d' kon wow lëg doo mais mais mais mais. Euh, bon je pas mais ngeen baal ma. Euh, ci chat bi puisque ñu ngi en direct ci YouTube ak Facebook jamono ji euh, am na ñoo laajte ne mais ñi bëgg xam nag nu mu demee. parce que am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo dañu ne. bëgg nañoo xam dëgg-dëgg nii rek danoo bëgg xam dëgg-dëgg li xew parce que fi mu àgg nii jamono ji stade bi mu àgg il faut que les choses soient xanaa xanaa xanaa xamuloo ne gis nga nag foofu la problème bi nekk nag xam lu xew googu hmm. tey réew mi toll nañ ci ak muusa kooku weranteek dóor ci réseaux sociaux yi déet boo demuloon bu nga tey justice bu ne woon nangam hmm. bu saag daa gis benn Demba Njaay bu jóge fee daal ne dañ ko wax naan waaye demut noonu hmm. c'est-à-dire que xam li xew moom luy jafe lay doon. tey justice bi sax mënoon naa dogal ba ne diw yaa def wala defuñu. ba noppi nag ah, bu nga justice moom a am. mais justice euh, na ko xam nga maandu googu nga wax noonu foofu la problème bi ne am ndax ndax ñoo xam ni ci Sénégal gi am na ñoo xam ne nañ gëmatuñu justice bi hmm. am na koo xam ne yegg nañ foo xam ne wax ñu ne boo def ndànk nangam cest day dema dem ba jiixi jaaxa day ñëwaat dugg waaye li li jaadu woon mooy justice bu xasee ba ne A la wala B la ñëpp xam ne A la wala B la hmm. waaye gannaaw justice bi itam am na bët bu ko askan wi xool est-ce que seen aala wala bee jooju la dana tax nit ñi wóolu leen foofu tam beneen saw sawal nga fi boo xam ne bii fi mu toll nii yaakaar naa ne bu ñu yeggoon ba ca njobaxtan la ba dogalit boo def ndànk ñaari bopp lay doon hmm. lu naqaree lijjanti lay doon parce que hmm. justice Sénégal bi ñëpp ne nañ à deux vitesses lay demee hmm. ñu wala boog ñu bari wax nañ ko beneen bi ci gën a garaaw mooy justice bi ci boppam ay nit yoo xam ne ci justice bi lañ bokk jàng lañ jàng nekk ay magistrat dañu dénoncer seen taxawaay léegi nag bu keroogee nag léegi justice bi est-ce que bu dogalee ne lii la dana nekk loo xam ne day nekk lu taamim lu daj loo xam ne ñëpp danaan ah effectivement lool la wala dañ koy dagal ba pare justice bi dogal ba pare ñu ne ah boo demee nangam c'est-à-dire que affaire bi mm-hmm. <laughs> lu luy doy waar lay doon mm-hmm. jërëjëf euh, oustaz Maodo Faye Serigne Mbacké Sylla fàttali mbokk yi à 11 h minutes ñu ngi en direct ci Sud FM ndekki li émission nandite yi la première émission de Sud euh, di leen jaajëfal bu baax a baax euh, dellu di leen fàttali ne bi ñuy ubbi bi ñu ngi woon en direct tribunal de Dakar mm-hmm. ak sunu naatango Babacar Kébé bu Seneweb di sant waa Seneweb bu ma duggee Sénégo ñoom itam di sunu partenaire média ñoom itam ñu ngi xibaar euh, par rapport ak procès bi nga xam ne mu ngi am jamono jilee foofee ca tribunal euh, di xibaar ne avocat wu Sonko yi dañoo demander renvoi pour euh, ba septembre ci procès bi le alors pour résumer rek rappeler que le leader de Pastef Ousmane Sonko donc à cause d'agression et violence à son encontre dit on a décidé en toute indépendance de ne pas comparaître tant que les conditions préalables qu'il a posées ne sont pas satisfaites à également que la présence dans la salle de nombreux témoins, dont Al-Fousseinou Gueye, gynécologue, capitaine Touré, Sorawad, Aïssata Ba, Amina Ba, Ibrahima Koulibaly, mari de Ndeye Khady Ndiaye mi ñu doon tudd sànq, Fatim Kébé, Elisabeth Gomis, Seynabou Ngom, euh, Seynaba Ngom, mhm. euh, Adji Sarr, l'accusatrice de Sonko, dit-on, euh, vêtue rouge, assise aux côtés de ses souteneurs comme Françoise Hélène Gueye, Abdou entre autres. Donc loolee maa ngi ko ci Sénégal. Mhm. donc li xew en cours jamono ji foofee te tribunal. na leer wala du leer euh, wala oustaz Maodo la mu wax ne euh, euh, finalement dafay na leer bi dafa nar a gën a lëndëm. Mhm. lii di noo ko gisee Mbacke. waaw na leer bi dafa war a gën a lëndëm moom <laughs> en tout cas daal maanaam projet bi moom senegal yëpp dañ ko doon xaar. loo ci mën a dégg moom dañ doon wax ne nañ ca dem ndax mu leer yi ndax jàpp naa ne euh, am réew bu ñu fa nekkee euh, moo waxuma ne justice bi dafa dafa maandu wala justice bi dafa dafa dafa dafee nekkal kii wala nekkalu fi kii waaye ñu am ay jafe ci ay citoyen ca yoon lay leere ji hmm. li fi dox ci diggante bi nag bari na lool moom laa doon wax léegi ne coowul mbedd mi hmm. tax na dossier bi ñu baree baree bari wóolootuñ ci justice hmm. effectivement ñi ànd ak Ousmane ba ci moom ci boppam euh, bu ñu demee ba ba d'accord ne mën nañoo bañ a wuy ji dañuy toog far dematuñu ñàkk am yaakaar jaar ci justice daa bokk ci li ko waral ndax bu la leeroon ne justice day indi euh, yëf yi teg ko ci yoon ak euh, ni nga xamante ne noonu la doon waxee moom Ousmane Sonko ne Adji Sarr nañ ko sàmm bu hmm. bu bakkanam nangam bu dangam nangam ndax jàpp na yëf yi moom bu ñu demee ba toog ci justice amul benn preuve bu koy taxal hmm. bu ñu wóolu woon justice ni ñu ko war a wóoloo dañuy dem kon ca yëf ya euh, maanaam sawar ca lool hmm. dem dem dem daa dem wuy ji jàpp naa ne tey réew mi boo doon laaj tey ëpp ci ñi ngay laaj ñu xalaat ne justice day joxe rek verdict boo xamante ni dañ naan lii moom mooy mooy mooy lu tegu ci yoon loo xamante ni mooy li sust mooy li mooy mooy li rayal danañ ne lii moom loolu mënta nekk léegi nag hmm. ndax euh, justice dana dana jéem a relever défi boobu tey hmm. wane ne kat fi ñu ma doon xaar nekkuma foofu tiim yëf yi càmbar ko li fi jaar yëpp ñu déglu ko mm. ndax sénégalais yi moom ñu ci ëpp nañ ko seen bopp ba noppi bu fekkonte ne ñoom ñooy def procès bi seen bopp defal nañ seen bopp procès bi ci garam place yi mm. def ko ci audio yi ñu jot a dégg def ko ci analyse yi ñu jot a def gis def ko ci taxawaayu ki wax ne dañoo àgg ci kawam mm. façon bi nga xam ne moom la ci àggee ànd loolu yëpp bi ñu ko defee ba noppi dañoo gis ne kiñ jiiñ ne dañ ko dafa violé a a kon bi bi ko sénégalais yi attelee seen bopp verdict bi ñu joxee bunut ci Ousmane Sonko léegi nag ndax yoon bu ko attee moom ba tiim ko càmbar ko moom ak ci nattukaayam ndax bu ko joxee day doon loo xamante ne daf koy éliminer ndax éliminer googu mooy li gën ci réew mi ndax mbooloo mi topp ci ginnaawam loolu la ñu xaar ndax loolu mooy jur jàmmi réew mi foofu la laaj bi nekk Nicolas yaakaar naa ne képp kuy tiit li la tax di tiit mooy tey lan la yoon di koo xam ne dañ koy woo ñu commencé di taal yëngal lan la yoon di wax tey ndax askan wi ànd ci ginnaawam yépp seen yaakaar yooyu dafa nara a tas tey mu doon lem gu këpp wala ndax day doon loo xam ne day ñëw tey ñu tànn li gën a doon jàmm ci réew mi gën a dal joxe loolu muy verdict hmm. foofu nag laa jàpp ne foofu la nit ñi di xaare tey jërëjëf Serigne Mbacké Sylla ndekki lii à 11h34 minutes euh, di leen sant ak di leen gërëm euh, li ma bëggoon euh, laa ci kañ mooy fàttali mbokk yi ñu ngi en direct ci YouTube bi ah réaction yi commencé nañ takarnaase ci YouTube bi sénégalais yi ci àdduna bi yépp monsieur et madame Sonko ki netaal ah ngi Espagne ñi ngi leen nuyu ñi ngi suivre émission bi grand euh, Sonko ñu ngi koy nuyu bu baax a baax muy nag Sonko bu nekk Espagne la donc ah. mm-hmm. <laughs> ñu ngi koy bëggee bu baax a baax ak euh, soxnaam di Kiné Tall suma sœur de cœur ma bos maa ngi lay bëggee Kinzo euh, oustaz ñu bëree ngi laajte également nu nu gisee nu noo jàngatee taxawaayu Ousmane Sonko jamono jile waa xam nga xam nga mbir mu nekk bu bu tàmbalee nga nga cay dem ba mu yàgg wolof nee na kenn ku nekk li nga am rek nga yóbbu marché c'est de bonne guerre li may faral di wax parce que Ousmane Sonko du police du gendarmerie. Hmm. du état un c'est un citoyen. normalement il doit respecter lépp loo xam ne lii ab citoyen war na ko mën a respecter ci am réew loolu mooy de prime abord loolu la ñëpp d'accord ne ab ab citoyen normal loolu nga war a respecter. Hmm. moom nag nee na respecté na ko ndax dégg naa ko ci ay waxam mu ne moom bu dee liggéeyal réew mi liggéeyal na réew mi te dugal na ci keesu ay réew mi ay milliards. Hmm. ba noppi itam ne kenn mënu koo jam ci lenn loo xam ne corruption la wala yu demee noonu hmm. loolu xëy na en tant que citoyen ci la ko waxee gannaaw gi nag mu dellusiwaat daal ne kon man su ma tollee fenn fi ba nga xamee ne su ma naree génn ñu toj samay oto def nii nangam barricade sama buntu kër nangam léegi nag loolu tant que garanti lu ma ko man kon léegi maa ngi toog fi ma toog hmm. loolu li muy firi mooy man lii laa man ci ngànnaay lu ma mën a yore fi ma toll nii la fa lañ ko sampee fa la fekk baax mu dem toog fa. Hmm. léegi nag la ci yoon wax. lan la ci yoon di dogal ab citoyen bu mel na Maodo Faye moom mënu ci dara. Hmm. xanaa ngal-ngal yi. Hmm. waaye la la la la texte man man nga xam ne sama xalaatu bopp. man bu ma doon Ousmane Sonko ni mu def laay def. kooku nag man la engagé waaw ah parce que bu sa bu sa bal yëpp jeexee nooy def da ngay demaat da ngay gën a topp ci sam noonu mu li di ko gën a wuti rek parce moom nee na bu toogee buñ koy jël hmm. coow li day bari dañuy toj fii buntu toj otoom nangam ak nangam xam nga bëri am na ci boo xam ne bii dem nañ ba génnee benn liquide ñu ne xëpp nañ ko ko xëppuñu ko ko waaw ah, loolu lépp ci sécurité la jëm hmm. tey ji bu génnoon tey benn waaye bu sant Diouf wala nangam de comme sama kal yi hmm. jekki-jekki fab daneen xëpp ko ko hmm. wala keneen indiwaat lu mel noona ba looloo ko taxoon a feebar ak yu demee noonu boo demee nag ba sa bakkan nar cee taxaw sa waay nag euh, lu golo xam wala fa nee na lu golo xam moom lay rogantee doomam en sachant que jàngkat yu bëri dañoo ne comment se fait-il que yow nga ne da ngay désobéissance judiciaire maanaam gëmoo tribunal ba pare say avocat ak say ñu ngi foofu tribunal di la représenter mais c'est normal parce liggéeyam la avocat bi du so du dafa am l' client et l' avocat. l' fait son travail il est dans son travail. donc amul contradiction. non man je ne vois pas de contradiction parce tey su ma la waxoon ne la kaay layal ma. Hmm. ñoom mu fay la nga war maa mën a layal. Hmm. mën naa am sax avocat Sonko yi li Sonko def da leen a gënal. alors qui sait. <laughs> jërëjëf oustaz Maodo Faye Serigne Mbacke si la. waaw euh, man question que oustaz boo doon digal tey Sonko ak taxawaayam loo koy digal. waaw actuellement nii moom bu ma nekkoon ci wetam duma ko digal tey euh, duma ko tere aussi waaye dama koy damay am ay laaj yu ma koy laaj. Hmm. ndax euh, fi ma toll bay gis. man am su ma ko ci digalee danaa juum ndax day wuute ak moom la mu yëg ba tax mu ne day toog. man ma man ma am yëg-yëg lu may gis ba jàpp ne day dem waaye dana am ay laaj yu bari bari yoo xamante ne nii dégg naa mu wax ci waaye boobaa kon danaa ko ca toftalaat yeneen i question hmm. mooy euh, bi ci jiitu mooy toog gi hmm. euh, ndax ndax moo gën ci moom bañ a dem maanaam toog ñu lay attee nga wuute euh, say avocat yi la war a wax ci sa place duñu am sañ-sañu wax hmm. yow doo am sañ-sañu défendre sa bopp te yoon wala muy dogal man naa doon loo xam ne dalay yàqal ca kanam. da ngay calculer wul loolu. waaw mais <laughs> li may wax ni mooy samay eh, xalaat aussi waaw mooy mooy mooy li ah. wax ma c'est-à-dire que conséquences yi moo tax ma ne dama koy laaj kon ay laaj rek li may wax ni ay question la yoo xam ne bu dee da ngaa bëgg a tontu ci place am aussi boo ma tontoo après ñu jàll bu ma paree ma wax li non non tontu ma la dama am <laughs> ah. koy laaj nàngam ko maanaam yow li nga koy dawloo eh, dama koy laaj nàngam te tekkiwul loolu di day mel ne man maa ko xamut man miy laaj non mais moom moom ci boppam xam na ne xam na. mais man maa ko xamul moo tax may laaj. man miñ ne ndax da koy digal da koy tere laa ne du ma ko digal du ma ko tere mais dama koy posé ay question ma tontoo ba ma am man euh, données yi ma a wax ne moom moo moom. ko jàpp ne xam na ko. waxul ne waxul ne Ousmane Sonko xamul information mais moom. Euh, bëgg na xam information. non boobu cest à loolu même ay avocats am koy posé c'est-à-dire que conséquence bi li muy wax nit ñi dañ koy xam ba pare des quartiers nag di ngal mooy ngal-ngal tax ma kar la ah, mais yow man nag dama am teew bi ngay ngal ngali karuma la waaw ah, man non déet déet yow say ngal ngal dérangé kay sa même say ngal ngal dérangé wu ma ah, mais moo tax nga kar li nga ne dinaa ko laaj loo xam lii moom ay avocat conseil moom bu ay conseil technique ba fii moom fii moom ku fi toog ñu bi la micro bi pour ngal ngalee tax bu ngal-ngal yi loo fi def. yow sax ngal-ngal yi day jëm guus. <laughs> am na solo. non non non Mbacke da ngaa da ngaa daaneel ko du ma daaneel. waaw waaw wax ci Mbacke rek mooy. xam nga xam nga xam nga politique. Mm-hmm. gis nga politique dafa nekk terrain bu glissant maanaam rattax boo xam ne. Mm-hmm. gis nga nit ki bu leen yaakaar ah, mm-hmm. a am na loo xam ne nit kese kese kese mënu ko. parce que loo for for for loo ay ay ay léeg-léeg fab sa nopp déglu nit mun la nangam ak nangam moo tax ma yaakaar ne man. ci Mbàkke question bi mu doon laaj man jàpp naa ne xëy na Mbàkke tam foofu wax na fi dëgg ndax comme da jàpp naa ne moom xamut mais man jàpp naa ne defu ko rek ci ak ak ak ak mag ñu nii am na lu lu mu def lu ne am na lu tax mu def ko hmm. <laughs> ah <laughs> dama yaakaar loolu rek hmm. moo tax laaj bi dootul amati sens dootul amati sens jërëjëf oustaz Maodo Faye ak Serigne Mbàkke si la ci ndekki euh, laaj bi di euh, finalement ak fii situation réew mi toll est-ce que lii euh, Ousmane Sonko laaj te état fekk siw ko ci loolu gënoon na wala gënul woon parce que Ousmane Sonko bokk nañ ci ay conditions yi mu posé nee nañ ko assuré euh, sécurité bu mat sëkk maanaam euh, li nga xam ne daal mu ngi koy laaj ngir euh, mu mën a déplacé wu mën a dem wuy ji yoon loolee état bu Sénégal da ko ko mujjee gàntal du noonu koy waxee. waaw da ko gàntal parce que xam nga. xam nga xam nga état. est-ce que état mënul woon. waaw waaw mais justement xam nga état ni mu yore sa sécurité yore ko bu mbakkee yore ko kiy dox ci mbedd mi di jaay. yore ko ambulant bi noonu la yore sécurité Ousmane Sonko. parce que Ousmane Sonko c' est un sénégalais c' est un citoyen moom sécurité sax normalement mi ngi ci loxo état bi. état bi nag état nag li tax mu naqaree lijjanti état da dul nit. état du institution la fi mu toll nii état bi boo nee Macky Sall rek tooñ nga Macky Sall parce que état c' est c' est un tout. c' un tout boo xam ne bii dafa ne ñum di di demandoo di dikkandoo. état boobu nag moo yore kaaraange Ousmane Sonko moo yore sa kaaraange nangam. léegi nag kenn ci yi bu fekkee dafa dem ba am ndomb ak tànk. toll foo xam ne fii ci wàllu politique dem nga ba yaakaar ne sa noonu la ci wàllu politique. état mooy xeexe noonu. Mm-hmm. bu kerogee moom day dootul gisati sax sa yow sa kaaraange Ousmane Sonko li muy laaj c'est un droit am la. Mm-hmm. pour ñu protéger ko garantil ko ne ko nangam nangam te état bi loolu xam na ko. mais état bi à à travers euh, def naa si ki yor seen kàddu. Mm-hmm. Euh, gouvernement bi euh, nee na Ousmane Sonko amul pour laaj quoi que ce soit parce que une personne tierce moo ko porté plainte dafa war a wuy ji rek yow. non non non dafa loolu loolu loolu loolu politique la rek. mais nit ki lan ma lan am na koo xam ne ki tey mi ma ngay wuy ji tribunal te laajul kaaraange te ñu ngi koy aar hmm. Ousmane Sonko ba mu tàmbalee ba léegi gisaguma fu ko police ak gendarmerie ñëwee di aar te pourtant am na ku mu wujjeel koo xam ne kii fu mu jëm am ay gendarme topp ko di ko di ko aar hmm. gis nga gis nga deux poids deux mesures yooyu itam il faut ñu calculer ko hmm. parce que am na keneen koo xam ne kii de l'autre côté euh, en face koo xam ne kii sécurité am na ñu ko yore hmm. ñan ñoo yore sécurité moo tax ma la man sama sécurité état bi moo ko yore bu Ousmane Sonko état bi moo ko yore léegi nag bu demee ba xam ne léegi mi ngi bëgg a salfaañoo mu ne état bi kët man léegi su ngeen ma garantie lii naa ne état bi sax a xaar ñu leen di wax loolu léegi nag Euh, bu fekkente ne kenn jóg ne daane dañ ko woo dafa war a wuy ji woo ji ak wuy ji gi ak sécurité bi leneen la hmm. leen loolu ñaar yooyu dañoo xaw a jege te laalante wuñu hmm. wuy ji gi man fii laa toogoon ne man Ousmane Sonko normalement am na loo xam ne bu ñu ko ca woowee en tan que citoyen war naa dem wuy ji waaye nag am na fa muy toll nag hmm. kenn ku nekk li nga am rek ngay demee marché Euh, conséquences yi mu nar a jur nag euh, ba ñeneen ñi di xalaat ne mën nañ dem ba jëli ko wala ñu encercler ko parce que état bi am na doole boobu. ah man na ko état non état moom lu mu bëgg a def mën na ko def. Hmm. bu ko bëgg loolu Ousmane Sonko na ko nee na xam nañ fi ma nekk demuma dawuma demuma fenn. Hmm. état lu bëgg def bu ko bëggee jàpp mën nañ koo jàpp. Hmm. léegi kay problème bi nekkul ci jàpp gi jàpp gi lu muy jur. comme conséquence yi ngay wax mm. est-ce que dana jur jàmm wala du jur jàmm foofu la foofu la coow li nekk mm. mais bu ñu ko bëggee jàpp mais bu ñu koy jàpp ci lu ñu koy jàppee mm. est la tax bi na jàpp ko mu yóbbu ay ay kaaraangeem ñu jàpp ko ok mën na nekk waaw bu keroogee nag dañuy wax naan est-ce que jàpp ngeen ko jàpp jaadu na wala jaaduwul ndax jar na ko wala jaru ko la mu jur nangam foofu tamit loolu yaakaar naa ne état bi a ngi ciy xalaat jërëjëf oustaz Maodo Jet Set simplement waaw. environnement bu neex macha allah li ngeen xamee moon moo di EDK bii nekk si diggante héliport ak Yanka. te gaz kenn du ko dana toujours xanaa xamoon loolu yàq énergie la yàqanal énergie mooy soqali suñu économie. mu des nag euh, li nga xam ne askan wi euh, aussi ñu ngi ko dund. waaw tey bi nga xëyee Mbàkke gis nga ne réew maa ngi mel ni jour férié. wallaay dëkk bi ah, euh, tali bi na selaw mm-hmm. oto yu bëri dañu gaare. Mm-hmm. boutique yu bëri dañoo tëj magasin yu bëri wàcce seen kii. Mm-hmm. mu doon ay manque à gagner yu yu doy waar. wane itam boole ci violence yi ñuy faral di nemmeeku. ci une Sud Quotidien bi ñu ngi gis d'ailleurs beneen titre mort mort violente lors des manifestations politiques état et citoyen ne parlent pas le même langage. donc manifestation politique bu amee d'habitude. ñu bëri li ñuy ragal ci ambassade du France sax def na communiqué ne ay euh, euh, français yi nanu moytu tey circuler euh, machin et cetera mm-hmm. ngay gis ne réew mi daal dafa mel nii doy na waar daal. waaw loolu de moom li muy xeeñ neexut. defe naa li koy firndeel li ñu wax léegi ci la bokk mooy condition yooyu mu waxoon ni ci la bëgg a wuyjee damay wax ne sax moom da koo wax ngir bëgg ko moom Ousmane Sonko waaye jàpp naa ne waa réew mi yëpp ñoo ko bëgg. Mm. ñëpp ñoo bëgg ñu fexe ba ba woote bi bu buñ ko wootee mu am ci jàmm maanaam kii wuy ji ñu bàyyi ko mu wujj ci jàmm wala condition yi tax mu mën a wuy ji ci jàmm mu wuy ci jàmm ndax ku ñuy woote atteeguñ ñuy taalaka toj defe naa dañoo war a xoolaat niñ la wooyee ak ni ngay wujjee ak li indi nit nag bu yoree eh, menn mbir def ko benn yoon am ciy jafe-jafe bu koy defaat daa war a xoolaat la indi woon jafe mu seppi ko defe naa eh, daaw jéeg ba léegi fu ñu tuddee dossier bi wala ñu ne bi sàngam la mm-hmm. eh, mu am lu baree bari lu mu jur maanaam boo seetloo ayibis gii rek diggante eh, talaata ji ak géeñu génn talaata ji passé dëkk bi dane woon selaw mhm. ñu bari ubbiwuñu woon buñ buñ ci jàngatoon ñu ci war a jànge ak liñ ci perte ci économie mm. ak lim ñu jural eh, ci yu baree bari xale yi jàngi wuñ bu bis bi dellu siwaat bu ñu defaat projet bi war nañoo góorgóorlu telle sorte que dalal xelu nit ñi rassurer leen ba nga xamante ne nii li li waraloon lu ñuy ragal la dig yooyu danañ ko seppi mm. ba projet bi am te eh, donc te jàmm rek am mm. waaye su fekkente ne bu tey jii li tax Dakaaru gii cité kër góor gi ñu amuk dal ñun ba mën a def li ñuy def li fi Ousmane Sonko nekkul la te malgré tout nekku fi waaye boo jaaroon fii léegi tey yi ñu nekk ci biir cité bi taxaw firndeel mooy bu ñëwaatoon tey ñu barricade fii tey tëj buntu yi tëj fii tëj fii tëj fii baare ñu loolu beneen jafe-jafe lay lay lay indiwaat loolu askan wi ci boppam ñoo soxla euh, ma maanaam ubbeeku googu même su fekkee dañuy waxtaan ak moom ba ne ko booy wuy si jaaral yoon sàngam waaye bàyyil ñu ñëw escorté la yóbbu la nga dem wuy hmm. boo noppee ñu escorté la nga ñibbi si waat loolu moo ëpp jàmm ci réew mi loolu moo ëpp dal ci koo xam ne day laaj réew mi bëgg réew mi amuk dal bëgg nàngam bañ convaincre ci loolu hmm. loolu boobaa day mën a am ci jàmm ne ñooyu waaye bu fekkee buñ ne càpp bu amee 48 heures la ñu tëj sa kër hmm. ah, Ah, loolu itam beneen jafe-jafe lay indi boo xam ne ku ragal ñu yàqal la doo génn hmm. ñun ñii ak sëñ Maodo mii ak ku man di doon boo xëyee di liggéey say mbokk ngi naan la bàyyi la xel sa bopp hmm. defal nangam defal nangam ñi nga xam ne amuñu contrainte yu toll noonu ak engagement yu toll noonu dañu mujj toog te hmm. loolu gënut ci économie bi quand même jégg la jërëjëf euh, euh, Serigne Mbacke Sylla puisque euh, information yi xam nga day wéyandi puisque mu ngi mu ngi wéy foofee ci tribunal bu Dakar muy procès bi di avocat wu Ndeye Khady Ndiaye yi ñu ngi laaj renvoi noonu la ko Sénégal fësale ci xibaaram yi mujjee Wade muy euh, avocat yi gunge Ndeye Khady Ndiaye ñu ngi laaj renvoi waane itam avocat wu Ousmane Sonko yi ñu ngi laaj renvoi ba teg ci di menacer ne mën nañ quitter euh, salle d'audience bi parce que am na ay xew-xew yu fa am demande de bi nag avocat wu sont Ousmane Sonko yi ñoo ko plaider euh, ils plaident donc ainsi pour le renvoi et disent qu'ils feront tout pour que leurs clients comparaissent en cas de renvoi Quand il s'agit de Sonko, tout est spécial. On ne comprend pas cette impression. Monsieur le Président, on demande si c'est pour respecter le calendrier des politiciens. J'ai entendu l'avocat de Ndeye Khady Ndiaye demander à ce qu'elle s'assoie, mais on lui refuse. Où est l'humanité? ainsi de suite appelé maître euh, noonu lañ ko fësalee donc mu ngi ci euh, Sénégal sunu ay partenaires média mm-hmm. encore di leen gërëm bu baax a baax a baax oustaz dégg nga li mujjee euh, wadd di avocat wu Ousmane Sonko yi niki avocat wu Ndeye Khady Ndiaye ñu ngi laaj renvoi procès bi avocat wu Ousmane Sonko yi apparemment ñu ngay wax ne sax Ousmane Sonko mën na présenté bu fekkee ne septembre condition yëpp c'est toutes les conditions sont réunies. waaw xam nga toutes les conditions sont réunies mooy mooy mooy li ñuy wax rek mooy li ñuy wax rek. Euh, euh, état bi mën na mën na yore garantie garanti sécurité ñëpp affaire bi ñu doxal ko mu daal di jeex tàkk. Mm-hmm. mais gis nga lii nii aji Sarr ak Sonko mii luñ ci mën a dogal daanaka jaru ko mm-hmm. ak luñ ci mën a dogal rek booy seetlu ba seetlu ba seetlu jaru ko xanaa mu nekk politique kon ni ko ni ko ñu baree bari di waxee nga xam ni politique moom dafa nga baal ma de ak li fi xew yëpp. nga ne luñ ci dogal jaru ko. waaw xam tax jaru ko parce que. Mm. tàmbali ba ca boppam. la nga xam ne moo doon illay wax ja bu fekkente ne dama ne woon naa ko def rek pour Daniel Mbacké Sylla wala naa ko def rek ba diw du mën a nekk euh, euh, candidat wala naa ko taqal nanga bu fekkee loolu rek a taxoon ñu aji saar ak dembaak sàmbaak ñëpp dugg ci biir ma ne kon lu ñu ci dogal ëllëg jaratu ko ndax base bi ci boppam la xool door a dem nag ca la muy jur. te loolu déjà rek fukki nit ak ñeent yu ñàkk seen bakkan. dama ne Adji Sarr jaru jaru ko Sonko jaru ko nañu waxante dëgg ndax réew mi. waaw loolu moom leer na parce te léegi nag gannaaw loolu jaru ko. Hmm. léegi kon te la taxoon boo demee ca reen ba la taxoon boo demee ñàkk fay danaa ko piégé naa def lii nangam naa fexe ba diw nangam ak nangam. Hmm. ay doomu aadama ñu leen di ci armeel hmm. a a def bu ñu ko defee mu équilibré justice bi kenn ku nekk xëy doxi ay soxlaam parce que réew mi fi ñu toll nii ñi ngi jublu ay élection 2024 moins de 9 mois xaw ma 10 mois avant élection yi fi ñu toll nii bu fekkente ne jël nañ fi ay dogal yoo xam ni xaw ma bu mu mën a doon loo xam ne xëy na mën naa andi rëg-rëg état bi ñëwati police ñëw gendarmerie ñëw kenn ku nekk euh, euh, taxaw pour réew mi dal fekk ne am na nuñ mënoon a def ba mën a moytandiku loolu lépp am na solo jërëjëf euh, oustaz Maodo Faye <laughs> Mbacké euh, dégg nga xibaar yi mujjee wadd foofu ca tribunal euh, ca renvoi waaw ci la ñu jëm bu dee tribunal topp na li nga xam ne avocat wu Ousmane Sonko yi laaj nañ ko waaw ñoom de xëy na loolu ñuy laaj daa bokk ci seen i sañ-sañ ak seen i droit hmm. waaye bu fekkee ñi nga xam ne dañuy njort ne projet bi politique da cee rax hmm. mooy buñ ko renvoyé moo gën ci euh, ñi nga xamante ne nii ñooy avocat Ousmane Sonko ak moom ndax dana gën a euh, xaw a yeexal tuuti temps bi mm-hmm. euh, ci yi nga xam ne moo nekk suñ kanam ba tax ñu jàpp ne moo tax ñuy gaawantoo yu baree baree bari mm-hmm. bu ay condamnation amee ak yi nga xam ne moo ci aju mm-hmm. ñi nga xam ne nag dañoo yaakaar ne politique da cee aju ba tey dañuy jàpp ne gaawantoo ko Euh, loolu mën na ci am ndax boo seetloo procès beeg Mame Mbaye Niang gaaw na lool ci diggante bu gàtt la def nañ fi yi ñu def yëpp euh, ba ba defe naa benn kuur a ci des boo xamante ne tey bu ñu doon def appel ak yooyu fa lañ koy yóbbu euh, muy cassation ak yi nga xam ne moo ci aju mm-hmm. kon day am yenn tactique yoo xamante ne nii ci mbirum ci mbirum justice ak mbirum avocat yi koy seq mm-hmm. waaye man li may wax mooy procès boo xam ne 2021 ba léegi lañ ko doon wax jekkeeti di ko renvoyé moom mënati naa ñàkk mm-hmm. ndax diggante 2021 ba léegi moom kuy jekk ku ne war ngaa jekk kuy pare yu ne ñun ñoo wax ne dañoo sonn ci te itam booba léegi procès bi lañ doon xaar moom la ñëpp doon xaar moom la ñëpp doon wuj ji rik waaye bu fekkente ne ay preuve am na kenn ku nekk mën ngaa layal sa bopp ñu wóolu yoon condition yi dajee nañu atte hmm. bu fekkee condition yi dajewut am na lu ñu war a xam te xamuñ ko jàpp nañ ne buñ ko layee tey te Ousmane Sonko téewut ay àqam man naa wàññeeku hmm. te diggante bi ak boobu mën nañoo waxtaan ba mu amuk dal euh, ñu ñëw atte mu ñëw taxaw bu verdict daanoo mu nangu ko euh, bu verdict dalee fee ñu xam ne fii la bu dalee fii ñu xam ne fii la bu boobaa yóbbu ko ba foofu moo gën man li may wax rek mooy bu kenn jiital intérêt yi boppam mm-hmm. mais nañ jiital nen bi ne ci seen diggante muy Sénégal te par parloo bi mën na ko dama la bëggoon jox mm-hmm. rek euh, euh, information bi mujjee wadd mm-hmm. puisque avocat Ousmane Sonko le concerné di maître Ciré Clédor Ly qui souhaite selon Sénégo se rendre à Ziguinchor pour faire venir loolu yi ngi xew ca jamono ji ngi ñuy waxee oustaz Maodo Faye maanaam loolu mooy lan foo bëgg ñu euh, renvoyer euh, kon audience bi euh, ci délai wu quinze jours. Mhm. dina ko may dafa mel nii mu dem waxtaan ak client wam Ousmane Sonko ba indi ko mu mën a participer mu mën a. mën a mu mën a bokk ci voilà procès bi. donc foofu la ñu toll jamono yii la. waaw xam nga xam nga ah, mën moom. waaw xam xam nga liggéeyu avocat lu tax mu garaaw. ak liggéeyu juge yi si lu tax ñu garaaw léeg-léeg dañuy wax loo xam ne lii ñoom lañ ca jublu. waxuñu ko kenn. Hmm. waaw parce que dafa am ku ñuy layal te dafa am koo xam ne dañu bëgg mu set wecc am ko am ñoo xam ne nii juste ci seen bopp dañuy xam galan waxu avocat bi fi jëm. Hmm. te loolu xëy na citoyen lambda bi mënu koo xam. Hmm. maanaam xam nga booy défendre nit tous les moyens. parce avocat yëpp ci ay këyit la ñuy sukkandiku. tous les moyens sont bien par exemple li li avocat bi ñaan pour ñu may ko dans 15 jours mu dem waaw waaw dem li jënt ji nangam bu a waxtaan ak moom yu demee noonu hmm. léegi tey bu ñu indi benn laaj comme ni ko Mbàkke di faral di defee ne léegi lu tax wax yow ñeme ngaa laaj lu tax wonu ma laaj yaa ma laajee ba léegi daanu waa waa yow yaa moom laaj da nga koo dagg ne ma yow xam na lii xam na lii nga naan waaw yaa moom laaj moom ma ko soble laaj alors je je je. <laughs> non non Mbacke yow. yow yaa moom laaj man soxla waaye gannaaw fan nga dëkk moom. <laughs> gannaaw say mbokk ak yëpp nga fan. bon pour wax soxla man may laaj. pour compléter ah, lii yaa wax yaa moom laaj. dama bëggoon dama bëggoon rek parce que li ma dese bëreetul pour compléter lii Sénégal wax par rapport ak maître euh, Ciré Clédor Ly dans la perspective de la présence de Ousmane Sonko à une prochaine audience maître Ly a sollicité un report de l'audience maître Ciré Clédor Ly sollicite et prie le tribunal de renvoyer pour lui permettre de faire venir Ousmane Sonko euh, comparaître. maanaam. Oh, bu mënee am baax na bu mënee am waaw ñu may ko euh, délai. mu dem waxtaan ak client am. Mhm. ngir mën koo indi. est-ce que ah. loolu ne. Euh, de toutes les façons lu mu yàgg-yàgg il faudra que Ousmane Sonko teew. léegi man loolu damaa jàpp ne justice maanaam ñi ñiy àtte ñoom nag léegi dañoo war a am nag benn benn xeetu bët bu ñu xool wax jooju. Hmm. su fekkee jàpp nañ ne tey jii bu ñu koy àtte te nekku fi. day indiwaat ñëg ñëg boo xamante nii jàmm du am. Hmm. damaa wax ba tàyyi ne àtte bu ñu koy wax ngir jàmm am moo tax. Hmm. atte buñ ko wax ngir delloo ku nekk ak xam moo tax avocat yi itam loolu ñuy def seen role la su fekkee loolu daa bokk ci li dalal xelu nit ñi bañ jàpp ni kii jaaruñu ci ginnaawam sàkk dafa war a teew hmm. nangul ko loolu mooy gën loolu nag ñoom ñooy xool ni ñu koy xoole waaye man de bu nekkoon ci place boobu wax ji jubu na ma ndax mu taxaw fa layal boppam joxe ay àqam ay àndandoom xam ne dafa dem layali boppam hmm. loolu moo gën ñu koy atte ci ginnaawam ndax loolu itam beneen ñëgg-ñëgg la indi boo xam ne hmm. verdict bu mën a am même buñ ko joxee dëgg te teewut maanaam dëgg gi day xajam daal euh, maanaam lépp teewee ci teewaayam bu amul ngaan sant loolu mooy li na gis nga gis bi tool mooy li ma wax léegi atte bi yegg na foo xam ne fii. Hmm. boo deful ndànk bu ñu teeyul. Hmm. lu justice dogal hmm. am ñu ne non am ñu ne wii. foofu la ñu yegg. waaw justice noonu la moom kay oustaz. <laughs> waaw non non noonu la mais xam nga bii xam nga bii non xam nga sénégalais yi tey bu sañoon. Ah. mbir aji saar ak sonko mbir mi leer nañ comme l'eau de rose nga xam danga naan lii la. mais lii la jooju. du ci ci am kon baax na euh, ñàkkul euh, sunu gan gi ma am euh, gi ñu am ak Maodo Faye waaw jeudi di acteur bu mag ci wàllu situation yi nii ci réew mi naa dama koy denc ba suba su ma dévoilé leen ko ndax xam ngeen ne bu ma jógee ci Mimi Touré semaine bi ñu génn ak buzz bi mu def yëpp ah oustaz Maodo Faye <laughs> gars yi woo nañ ko fu ne <laughs> ak sunu émission ak madame Aminata ture Mimi Touré macha allah jeudi danaa leen indil beneen acteur majeur ci wàllu politique beeg situation réew mi dina am révélation yi mu def ci ndekki li émission bu mag bi di émission numéro un bu Sud FM seen rajo la première rajo d'information du Sénégal li des ci xibaar yi ca tribunal ñàkkul euh, euh, journaliste yi daan cee dellu si euh, El Hadj Malick Ndiaye bu rédaction centrale ak ña mu àndal xam naa xibaar yi léegi mu teew bu ko defee ñu daal di jokkook ña ñu jokkool n'est-ce pas oustaz Maodo Faye maa ngi lay sant di la maa ngi lay sant bu baax di la gërëm jërëjëf jërëjëfati waaye merci beaucoup Mbacké waaw béggee Nicolas jërëjëf waaye challenge Macky bi da daf saf na waaw xam nga comme ñoom couleur yi nañ ko <laughs> Eh, fi mu ne man mi nga xam ne beñe dugub laay doon ndékkee bis bu set <laughs> ma gis ñu naan beñe dugub beñe dugub man leen ah ku ma ëpp bàyyi da koo tudd rek waaye man maire beñe dugub xam na ma de eh, ñoom daal lu ñu rek ñu bëgg leen koo bàyyi xam naa moo ñàkkul daal suma suma waa ji Abdou Karim Fofana dina la yaa ngi ci challenge gisoo bi ma dugg si challenge challenge bleu bi waaw bleu bi te <laughs> eh, ah, am lu mel mais ñoom marron bees lañ moomoon nañ leen bàyyi léegi ñu ngi ci bleu déedéet ah am na ko fi waxoon le bleu c'est ce qui me va le mieux Mmh. Le bleu, c'est mmh. ce qui me va le mieux. C'est ce qui me va le Très bien. Mais c'était le mieux, madame bleu bi baax bi. Oui. C'était Tigo à l'époque. Oui oui, ah d'accord. Voilà, merci. Tigo la yombe. <laughs> voilà. <laughs> merci Mbacké, merci Maodo, merci euh, Aline Barara Socé. Merci euh, également euh, sunu euh, gars yi nga xam ne ñoo ñuy gunge ci digital bi Cheikh Oumar Ba, ah, euh, Ndoye ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal yéen itam mbokk yi vous étiez très nombreux à nous suivre comme d'habitude. Ndekili émission nandité revient demain. N'oubliez jamais, visez la lune. Salut à tous et à demain. À demain. E e ànd ak yéen seen émission ndekki li ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi ndekki li émission nandite yi